leen di di leen ziar bu baax ci àjjuma ji euh, di leen euh, wax rek mais euh, mooy dernier numéro de la semaine ni ñu koy defee saa su nekk rek ñëw waxtaanee actualité du ñàkk dinañ dem ci côté Mali daal di waxtaanee nanga nga xamante ne moo fa xew jamono ji mu di crise bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ca dëkk ba mu am ay manifestation bokk na ci tey bi nga xamante ne rek Imam Mahmoud Dicko woote na ko ngir ñu ñaawlu li nga xamante ne mooy doxalinu président ba di IBK daañ ci ñëw ci kanam ak docteur Bakary Samb ci mbégtu institut ci kanam lay doon gannaaw 20h bi xibaar yi it ak uh, waa rédaction bi ci wolof dina fi teew uh, pacc bu njëkk bi ñu jagleel ko média yi xam ngeen nag fan yi uh, coow li bëri na moo xam yenn saay ñu dégg ci maison de la presse wala sax li nga xamante ne mooy coowal Cheikh Yérim sekk ak lu ci mënta am daañu gën a yaatal ak ki nga xamante ne moo di. Ibrahima sa fay nekk njiitu appel di association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne Ibrahima dalal jàmm ci plateau bi. Euh, maa ngi lay sant bu baax euh, Ndeye Aram Touré euh, di la nuyu di nuyu téléspectateur u TFM yëpp et puis aussi di nuyu sama natango sama xarit Daouda Mine. moo nga ko Daouda nuyu naa la. ngi lay fay ajaratu. alors ñu ñëw euh, ci euh, maison de la presse ndax euh, démb rek dalal nañ fi njiit li di Bara Ndiaye ñu wax ko ci ay ponk li nga xamante ne ni appel souligné woon na ko ak ñi mu àndal ci biir CAP ci lettre bi nga xam ne jagleel nañ ko président de la république waaye moom jàpp na ni ci doxalinam gisu ci lu jar coow waaye man damay dellusiwaat rek ci li tax waa CAP daal di jóg ne nañ leen delloo maison de la presse lu tax. xam naa sax en fait wartuñu wax maison de la presse dañu war a ne maison du parti wala maison de l'administration mais du maison de la presse ndaxte dañ ko tabax kër gi dañ ko tabax pour ñun journalistes yi ñu mujj ko nangu suñu loxo confisquer que jox ko administration boo jëlee conseil d'administration bi sur les onze membres il y a que deux membres euh, des acteurs de la presse à savoir le SYNPICS et le patronat boo jógee ci loolu ñun dañ ko boykatoon lu njëkk après ministre bi bi ñu koy doog a fal mooy ministre Abdoulaye Diop mu woo ñu waxtaan. Euh, c'était le 11 juin 2019 bi ñu ñëwee toog mu nañu kat maison la presse ni te def ñaaw na seen kër la donc jox jël leen nga ngeen def ko. Euh, ngeen ngeen dundal ko quoi def ko seen yëfu bopp. et xeex bi bu ngeen nekk ci biir ci li gën a yomb que bu ci biti léegi nag man li ma leen di ñaan mooy que ne maanaam ngeen ñëw euh, bàyyi seen boycott bi bu ngeen ñëwee. après euh, désigner aussi seen membres yi nga xam ne ñoo leen ñoo leen di représenter ci biir conseil d'administration bi léegi bu ngeen duggee ci conseil d'administration bi ngeen jëm a xeex vraiment et puis et puis aussi man it dinaa wax président pour que maanaam post président conseil d'administration bi ñu jox leen ka et it ñaar yi nga xam te ne man maa leen am sañ-sañu euh, nommer leen ci par arrêté dinaa ko jël seen membre cap d'accord c'est-à-dire mën na ko jël ci appel mën na ko jël ci convention mën na ko jël ci collecte mën na ko jël feneen. léegi nag tey ñu toog conseil des ministres génne communiqué ñu xool gis na ñeneen lañ nommé liñ doon kaas boobu ba léegi ma nga fa gën a yees gën a gën a gën a gën a gën a wule ñaay déjà la ñuy kaas mooy mooy euh, président moom moo am pouvoir de nomination moom la constitution bi conféré donc kenn mënu ci dara waaye it bu doon ci wone beneen kër la boo xam te ne ay acteurs ak kii balaa muy def dara dina saafonte acteurs yi jéem a xool naka lañ koy doxalee ak naka lañ koy kii ndaxte au départ gouvernement bi daf ñu invité woon benn rencontre à Saly pour ñu xool ban type de gestion la ñuy jox maison la presse ñu waxtaan ba tënk conseil de fondation acteurs yëpp teewoon ñëpp kii woon ba ñëpp d'accord ci ba ñu defar suñu plan yëpp a teg après état jël loolu yëpp teg fële ñëw andi leneen. bi mu àndee neen nag léegi ñu ne ko ñun ko d'accord ñu léegi ki mu àndi mu nomee ko fa mu def fa 4 ans amul conseil d'administration amul ACP amul dara muy buum di buum di def lu ko neex donc la fa xew noonu yëpp balaa président di jëlaat décret pour nommer waat que mu def ko DG administrateur def ko DG waroon na au moins jéem a xool. gestion am naka la demee woon ak lu fa woon nag yooyu noonu balaa mu koy dàbbali jóge ci loolu ñëw nommé aussi PCA boo xam te ni c'est vrai que journaliste la amoon ñu benn problème te kooku moo installé woon Baara bi ñuy doog a fal Baara DG et donc tey ñu dañuy ne mais vraiment donc état bi moom faalewul bokk acteurs yi moom joxu leen benn cër et donc kër gi dañ ko jël rek def ko noonu pour administration publique wala administration euh, APR euh, maison de l'APR pour di fi def seen i réunion di fa def seen i seen i seen i seen i loolu mais mais am na ñu nga xamante ne dañ ne loolu ay question de forme la parce que ki nga xamante ne moom moo am sañ-sañu nommé à toutes les fonctions civiles ak militaires muy le président de tànn na ñaar kenn ki mu def ko directeur kenn ki mu def ko PCA euh, yéen acteurs yi sur le fond loolu pourquoi yéen yi waru leen arrangé parce que ñaari ñooñu ñëpp ñoom tamit ay ay journalistes lañ. non mais bu dee ay journalistes lañ aussi. tout mm-hmm. euh, maanaam kuréel yi ñoo leen tànn. Mm-hmm. parce que en fait boo demoon yeneen structure muy SODAV wala nga dem caisse sécurité sociale wala IPRES wala yeneen euh, kuréel mm-hmm. président fu mu amee sañ-sañu tànn PCA wala mu proposé euh, DG toujours acteurs yi dañuy toog. waxtaan seen biir nekkat président bu ñu sañoon kat kii mooy nekk PCA bi président daal koy nommé parce que àla kuli aal président mooy nommé waaye li ñu bëggoon rek tuuti rek mu saafonteeg ñun daa nekkat ah yi kat nii la demee euh, def proposé la mooy liste euh, trois personnes mu ñu proposé liste trois personnes comme mu nommé mu xam moo baax na mais dans le fond ci gestion euh, maison de la presse Bara Ndiaye nekk na ko depuis quatre ans yéen dafa am lu nga xamante ne moom ngeen koy reprocher euh, réellement dans le fond quoi pas dans la forme mais dans le fond. oui on lui reproche beaucoup de choses. Hmm. beaucoup de choses ay wax dëgg fa yàlla. moo tax euh, am na benn moment sax bindoon nañu état bi pour laaj cour des comptes ak IGE wala OFNAC ñu dem dugg saytu gestion parce que la fa xew moom. moom jëfandikoo mais ci lan ci lan ngeen ko wékk ay firnde pour nit yi xam. non non dañu am ay firnde ay document yu prouvé maanaam li nga xam ne moom la fa def te loolu noonu bu ñu état bi woowoon ministère wala keneen malheureusement ministère. amul yenn sañ-sañ amul yenn pouvoir yi sax ci Baara Ndiaye parce que dañ ko nommé comme Baara Ndiaye donc mënul ko dara mënul ko dara mais la fa xew ñun wax nañ ko ci presse bi et aussi on l'a tout le temps dénoncé mais taxul. état bi reculer wala mu sax mu jéem a xool li ñuy wax dëggal wallu dëkk seen waxtaan yi ngeen di def ak ministre euh, de la communication lu muy jëriñ ko. justement. yéen ngi waxtaan. Euh, daan nañu waxtaan. ah daan ngeen waxtaan léegi dañ ko dakkal. mais dañ ko dakkal jamono ci nii ndaxte depuis euh, affaire distribution et de la presse bi gis nañ nu mu demee et puis aussi ñu jóge ci loolu affaire maison de la presse bi décret kii conseil communiqué conseil des ministres bi ñëwati encore. gën a yokkat ci xar mi karaw ñu ne nag bon jot na nag jamono jii parce que euh, ay gorma bu ñuy wax ku nekk dafa war a sàmm kàddoom ndaxte ñun kat euh, euh, ministre bi li mu ñu wax ci lañ mën a jàpp ñu jàppandi ci toog di xaar boobu ba léegi boobu c'était le 11 juin 2019 di xaar ba jamono jii nii léegi mu mat at ñu daal di ñëw def andi benn conseil d'administration boo xam ne xamuñu nu mu demee nommé waat directeur général ba fa nekkoon te saytuwuñu sax la mu jotoon a def ainsi donc ñu ne nag wax dëgg fa yàlla ñun état bi euh, ñun jox leen cër ñu leen di bàyyi xel leen déglu waaye ñoom kat ñu xel dégluwuñu et faale wuñu léegi si sa wax évoqué nga euh, gestion bi nga xamante moom la ñu gérer aide à la presse bi fa nga ne am na nu xam nañ nu mu demee mais téléspectateurs yi peut-être ñoom xamuñu naan la demee yéen lan moo leen naqari ci nu ñuy gé nu ñu gérer euh, li nga xamante moom mooy aide à la presse parce que gis nañu chaque fois ça revient at mu jot à fois bu fekkee dañuy distribuer aide à la presse coow dafay amaat. doublé ko. waaw ti ren ñu doublé ko 700 millions la woon ñu def ko 1 milliard 400. ban problème ngeen ci gis ak nan ngeen yaakaar noonu lañ ko war a doxalee ba pro coow yi dootu fi amati. Euh, en fait problème bi ñun bi ñuy demee rencontrer le président le 27 mars passé ci affaire Covid beeg yooyu noonu moom daf ñoo laaj nañu waaw euh, est-ce que aide la presse bu ñu koy distribuer da ngeen ci bokk mu ne ah président yàlla def na de loolu moom amul duñ ci bokk. et mu ne wax mais dañoo war a taxawal commission après jéem na woo ministre bi jotu ko ci saasi jéem na ko woo jotu ko mu ne kat ah normalement acteurs yi ñoo war a définir ensemble clé de répartition bi léegi ñun bu ñu paree wax dem nañ rencontre ministre bu wax que ne kat président kat lii la wax mu ne moom kat président mooy njiitam. et du ñun ñoo koy ñëw rapporter mm. li nga xam te ne moom la président di wax. Mm. donc moom am na possibilité wax ak président directement donc ñoo koy rapporter te it euh, moom. Euh, maanaam montant yi xam ne moom la organe bu nekk di jot entreprise bu nekk di jot comme salaire la mënu ko jël maanaam di ko def sur la place publique ñu ne que ah monsieur le ministre kat demeewul noonu parce que mbir mi euh, waxtaan la bu jubóo et ñun ñëpp on est assez responsable pour mën maanaam li ñuy tënk ñu mu yem fii. et ñu xool naka lañ koy defee ba nga xam ci ne ku ci nekk kat dina ci mën a gis boppam parce que mbir mi léegi nekkatul million millions 1 milliard. 400 millions la. Euh, mu ne ah, ñoom kat ñoom la mbir mi sas la ci ñoom pour ñoom ñu doxal ko ni ñu ko war a doxalee donc ñoom dañ jël seen responsabilité doxal ko. bi ñu ko doxalee nag bon ñun bi ñu laajee liste yónnee nañ liste ñu laaj waa CEDEPS liste ñu yónnee liste waaye distribution bi wax dëgg fa yàlla. ñu bëri gisuñu seen bopp. amee ah, chèque yi ministre bi nee na joxe na te ñu bëri dem nañu récupérer ñi doon xaw a siisu sax ñenn yi dem nañu après jëliwaat kenn la ci ne wax boog mu leer daan ne ku mel ni Bougane Gueye dani dafa bañ moom moom du récupérer chèque am cest loolu mu ngi am chaque année ñu distribuer xaalis bi eh, te chaque fois coow lay indi. lan moo tax tey mu war a indiwaat coow alors que noonu la ñàgg a doxalee pratique boobu noonu. dafa mel ni au début sax da doon arrangé ñenn ñi wala boo xaalis lu mu yokk la peut-être distribution bi ngeen gis ne ñii ñoo ëppale ñi moo tax ngeen di wax. xam nga en ren coow bi mu am sax gëj na ka am dëgg la daan na saa su nekk mais ren coow mu am gëj na ka am non seulement li ñu ko doublé la mais aussi ni mu demee la et boo gisee. ñun dañu def benn erreur répartition bi jaarul yoon jaarul yoon ñun dañu def benn erreur. et bu ñu toogee réunion CAP reconnaître nañ ko te Sadio ba ñu laajee liste waruñu woon yónnee liste ñuy CDEPS ñuy appel nañu waroon toog ba ñu joxe liste après nag exiger ministère bi que ñu toog def kuréel xool nag la ñuy koy distribuer bu bañee mu distribuer ko moom ni mu ko bëgg a mais quand même ñu duñ ci contribuer ñun fa ñu joxee liste ba foofu la ñu defee erreur bi. léegi bu ñu joxee liste bi ñi nga xam ne mais fi mu nekk jamono ji ñuy wax. nii mais bu deful woon loolu est-ce que du ngeen ko wax ni moom tamit dafa décider de manière hmm. waaw mais ba léegi rek moom mu décider de manière unilatérale jël sa ay responsabilités comme ni mu ko waxee. Hmm. et li nga xam te ne am na. mooy que ne maanaam jamono ji ñu toll nii entreprise de presse yëpp dañuy nekk ci ay jafe-jafe sonn sonn goo xamante ne mais ku leen joxaas dañuy jël. Hmm. donc am na ci ñoo xam ci ne saa fi ñu toll am ay problème mu salaire am ay problème de fonctionnement am ay problème même pour fay peut-être euh, facture ak yooyu noonu nga nekk kat ah benn 10 millions nii nga nekk doo ko jël. mais saa waay kooku boo ko waxee moom beneen problème ngay andi. suñu modèle bi mooy mooy poser problème c'est-à-dire teg loo xamante ne ndimbal la noonu lañ ko mën a tuddee aide à la presse bu ñu tegoon loo xamante ni peut-être fond la nit yi ku soxla war a mën a remplir yenn critères yi ñu jox la xaalis nga mën a. jëfandikoo loolu. xëy na ëllëg nga mën a nga mën a yaa ngi doog a dikk parce que ci foofu lañ jëm mooy fonds d'appui aux entreprises de presse. Hmm. et code bi loolu la jëmmal li ci des mooy juste décret décret wu noonu. depuis code bi dañ koy wax ba def ça devient chimique xaw ma il faut ñu ci code bi 2017 léegi ñu ko waxee code de la presse. suba lay am 3 ans bi ki assemblée voté. le juin suba samedi le 20 juin. ci lay am 3 ans et d'ailleurs sax ñun on a fait un édito commun bu ñu nar a génne lundi dans toute la presse pour dire au président depuis 3 ans on a voté un code de la presse mais qui n'est pas applicable parce que simplement en fait. décret d'application yi yëpp mi ngi bloqué fu loi yi mu war a àndal mi ngi bloqué au niveau du secrétariat général du gouvernement on a tout fait on a tout acté ci ñoom la des et pour te dire dañuy wax code de la presse bi mais bi ñuy distribuer code euh, de la presse bi mais il y a des dispositions du code de la presse qui pouvaient être invoquées et appliquées waaw mais da nga wax ni code bi voté nañ ko mais ba léegi appliqué wuñ appliqué wuñ ko. parce que su ma su ma su ma jàppee rek lenn lu nga xam ne commencé woon nañ ko appliqué muy peut commission. bi nga xamante ne moom moo war a distribuer la carte nationale de presse bi nga xamante ne bon nee nañ man maa ko jiite <laughs> waaw man maa ko jiite mais déjà bu fekkee ne jël nga jël nga jël nga commission boobu rek déjà décret d'application bi nga xamante moom moo war a ànd ak moom pour que mu mën a liggéey notamment fond fond d'appui bi nga xamante moom moo ko mën a moom moo koy financer pour que mu mën a def ak acte bi mu kenn kiiw ko léegi dañu bëgg ñu nga expliquer à l'opinion ñaata décret d'application ñoo war a ànd ak code bi ak décret d'application yi pour lan la. en fait il a il y a deux décrets d'application il y a un décret qui institue le fonds d'appui aux entreprises de presse. il y a un autre décret ba mooy remplacer ba mooy remplacer aide à la presse. mooy remplacer aide mm. sur les avantages et obligations liées aux entreprises de presse. Mm. Mm. et boobu noonu mooy tax maanaam pour nga mën a euh, am ci yenn avantage il faut nga remplir yenn obligation foofu noonu ci lay gën a leere cest boobu dafay gën a compléter code bi am na ay dispositions yu code bi yoo xam ne maanaam bu ñu ko jëloon appliqué wuñ ko ci bi ñuy distribuer code de la la presse bi mais ñu bëri duñu loon woon am ndax dañu ne lii mooy entreprise de presse lu dul entreprise de presse code bi c'est très clair et loolu noonu soxlawul décret soxlawul arrêté soxlawul soxlawul lenn defuñu ko donc aujourd'hui état bi nga xam ne maanaam moo war a veiller à l'application des textes des lois et règlements dañuy voté dara ñu jël ko ñu tekk na la. mais bi ngeen bi ngeen rencontré président seen rencontre bu mujj bi parce ce que waxtaanu leen ci loolu. non bi ñu rencontré président affaire force Covid 19 lañ doon wax. ok et affaire aide bi ci liñ ko souligné euh, mu ne effectivement ne ko doublé. fi mu ne ñu ne da koy def ko un milliard quatre cent daal ne nii daal di ñu wax it ne euh, li nga xam ne mooy fonds force Covid 19 bi. presse bi na ko ci boole mu sant ko gërëm ko bu baax a baax parce que wax dëgg fa yàlla mënoon na ko ci bañ a fekk def na ko et loolu noonu lu ñu rafetlu la mais ba léegi nii ci presse bi déggaguñu ne ñu ne kat jël nañu tant de milliards alloué que la presse secteur la presse comme ils ont fait avec le secteur des de la culture et des arts comme ni ñu def ak yeneen yeneen yeneen secteur donc juste pour dire que ne foofu aussi ñu ngi fay xaar président de la république et j'espère que aussi du nekkaat loo xamante ne dañuy ñëw bon. mais Ibrahima li ngay wax nii du lu bees président plusieurs fois ci ay conseil des ministres wax na yéene bi nga xamante ne moom am na ko ngir fexe ñu assainir secteur euh, bi nga xamante ne mooy mooy mooy kii média mais loolu boobu ba léegi mu koy wax. tey joxe naa ay instruction gëm naa ne président waxul bàyyi noonu dina joxe na ay instruction pour yow lan moo waral kon ba léegi ñu noté léthargie bi nga xamante ne am na bon ci jëfin bi euh, li ko waral kilifa de bu waxee jëfe moo ci war a topp wax dëgg fa yàlla maintenant nag li ko waral ah dina ba jaaxal trop parce que kat ay service am ñi nga xam te ne ñoom ñoo yor possibilité bi euh, document bi yóbbu ko ci moom mu signé ñoo ñoo ko defagul et wax dëgg fa la ñun acteurs yi ak waa ministère de la communication li ñu waroon def ci document bi yëpp mat na. ne la secteur bi nu mu tëddee nii moo arrangé gouvernement bi. ñu bëri parce que bu ñu waxee lañu wax dëgg bi tëddee mooy que yaa am na ci bëri ñoo xam ne ñu di ay ministre ñii ay député ñii ay kilifa yoo xam ne dañu yor seen organe de presse te malheureusement organe de presse yooyu noonu respecté li xam ci ne mooy minima mm-hmm. mooy ñun ñu nekk secteur bi di xaru di def lu nekk pour maanaam ñu euh, jëmmal code bi doxal code bi et malheureusement rien n'est am na ci loo xam ci ne aajewul décret aajewul arrêté aajewul loi war nañ ko mën a appliquer. léegi amul mais mais Ibrahima gis nañ ni bon ci affaire Cheikh Yérim Seck parce que moom moom moom moo fi mujjee. génne ngeen dépoussiéré ngeen benn vieille revendication muy dépénalisation wala déprisonnalisation et je pense que loolu dépassé woon nañ ko parce que code bu bees bi avant ñu koy voté ça été un débat bu nga xam nekk na fi ay at ay at et je pense que dépassé nañ ko lan moo tax léegi fi mu toll nii avec affaire Cheikh Yérim Seck ñu tegaat ko sur la place publique ah il faut ñu tegaat ko sur la place publique hmm. parce que tëj journaliste xewatul fenn ci benn réew hmm. kii la reculé de manière en fait démocratiquement parlant tëjatuñu ay journalistes. alors ah, journaliste yi au-dessus de la loi wala. non c'est pas question que journaliste est au-dessus de la loi mais c'est-à-dire un journaliste on ne peut pas le mettre en prison pour ses écrits parce que mënoo ñëw tey tey journaliste nekk kat tey wax sa source les textes les plus anciens et même les textes européens et même des Nations Unies récents de 2010 ak yooyu noonu. ils ont rappelé ce principe fondamental. mais est-ce que liberté d'expression est-ce que kon Ibrahima waruñu mettre en adéquation euh, le code de la presse ak le code pénal parce que boo jëlee code pénal quand même am na ñaari dispositions yi nga xam mooy concerner les de presse notamment diffamation ak diffusion de fausses nouvelles. et je pense que bu fekkee ne dañ ne journaliste bi bëgguñu mu dem kaso il faut que ñu changer article 255 bu bu bu bu code bu code pénal quand même bi nga xam moom mooy prévoir diffusion de fausses nouvelles xamante ne article 139 bu code de procédure daf ne le mandat de dépôt est obligatoire. gis euh, li ngay wax nii. Euh, mooy tax ma lay firndewaatal que ne encore dañu piégé woon en 2017 parce que bi ñuy yooxu mm. di di casse pour ñu voter code bi dañu ñëw jël ñu dem. c'est-à-dire ñu liggéey ci code ba pare ñu jël code bi nëbb ko dugg ci ay affaire cest ñun dañuy def liggéeyoon pour dépénalisation ñu xamal ñu ne dépénalisation comme instant yi mënul nekk nañ ko jël tekk nel de côté ñu continuer au moins ñu val ñu parce que y a des acquis qui sont là-bas ne a non pas euh, disons la déprisonnalisation mais ya y aussi des sanctions pécuniaires qui sont qui sont la Euh, aux peines de prison. Mhm. donc pour vous dire que simplement maanaam code bi côté boobu noonu corsé la fi bien vrai que am nañ fay acquis mais côté sanction il y a des sanctions qui sont très lourdes il aussi la prison qui pend qui est une épée qui pend sur la tête des journalistes donc juste pour vous dire qu'en fait foofu aussi euh, ay manquement la fa moo taxit suñu édito bi war a génn di dangeen ci gis loolu yëpp parce que wax dëgg fa yàlla quelque part on a l'impression que dafa am maître boulangerie boo boo xam ne dafa ñëw taxaw. ka may ah. <laughs> am na daal koo xam ne moom moom xëpp nit ñi fariñ lay def avance dem yoonam dañuy ñëw ba ñu wax ne lii la. yaakaar ne loolu la ñu jékki-jékki dootu ñu gis dara mu ñëw fa enfariñ nañu dem yoonam. def nañ ñu ko ci code bi defati nañ ñu ko ci maison la presse bi moo tax jamono jii nii maanaam bu luñ ñu wax. tànk gisuñu ko duñ ci teg tànk teguñ ah. suñu bët duñ ko kii. lu mel ni maison de la presse bi yéen ñi wax ñu delloo ko acteurs yi ñu ñu mën a euh, toppatoo euh, li nga xamante ne mooy mooy yorin gi euh, te pourtant gis nañ maison de la presse boobu lu ci ëpp ci doxali xaalis bi ci état lay jógee tey bu ñu jëlee kër gi jébbal ko acteurs yi ndax yi matee nañu pour mën a gérer li nga xamante yëpp moom la kër gi laaj. xam nga boo demee ci sous-région bi muy Mali Burkina Togo. Euh, Bénin seen maison la presse acteurs yi ñoo ko gérer ils vont trouver les moyens pour pouvoir nu waxuma rek gérer hmm. maison bi de cest doxal kër gi de mais cest à renforcer les capacité des journalistes andi ay programmes yoo xam te ne maanaam day gën a yi gën a ñoŋal métier mi c'est ça en fait et puis maison la presse du sa du saa du benn building bu ñuy jël rek teg nii. saa dafa war a am tey journaliste yow boo demee euh, reportage en ville. nga xalaat ne balaa ngay ñëw édition bi dina jàll nga dem maison de la presse monte sa euh, sa élément yónnee ko rédaction dem ñibbi sa biir kër et puis aussi journalistes yi war a mën di fa dajee di waxtaan teg ay kii yooyu noonu c'est-à-dire aujourd'hui bi ñu am nii au sein de la CAP boo demee ci yeneen dëkk yi man temps yi passé recevoir naa fi ay naataango yu jógee Burkina euh, association yëpp comme CAP bi ni demee nii. ñooñu maison de la presse mooy seen siège fa la ñuy dajee di waxtaan. et tey jii nii war na maanaam am ñaari régime régime boo xam te ne pour euh, ñi nga xam te ne ay euh, ay gan lañu wala ñooy loger ci hôtel bi ba fa nekk. am régime boo xam ne pour reporter yi la ku fa bëgg a dem lekk yi wala ku fa bëgg dem invité yi sa sa gan sa benn nit. mën ko fa invité mën fa lekk ak moom waxtaan ak moom nekk ak moom. sa à dire maison bi li mu war a mën a jëriñ. presse bi dafa bëri. valoriser wuñ ko comme il faut valoriser wuñ comme il ah. fekk benn journaliste. Hmm. dinañ ñëwaat euh, ci yow si kanam Ibrahima Lissa euh, Faye jiite ab euh, Diop ñu ñëwaat ci suñu gan di Ibrahima Lissa Faye jiite appel sànq ñu ngi doon wax ci acteurs yi bu ñu leen delloo maison de la presse ndax dinañ ko mën a yore waaye tey dina baax ñu xam comme yéen a ngi koy laajte également ndax instant bi nii dafa am lu ngeen waajal pour mën récupérer maison bi wala da ngeen fa continuer boycott bi nga xamante ne dooroon ngeen ko avant. waaw boycott bi dañ koy continuer et am na plan d'action boo xam ne bu ñu taxawal et bu ñuy nekk di doxal jamono ji euh, semaine passée il y avait une lettre ouverte adressée au président de la République am na ci ay kàngam yoo xam ne ñu ngi nekk di waxtaan ak ñoom et euh, lundi am na aussi benn édito commun boo xam ci ne dina génn ci presse bi yëpp mais édito bi ça sera beaucoup plus accentué sur. euh, l'an 3 du code de la presse qui tarde a être en tout cas appliqué depuis euh, 20 juin 2017 bi nga xam ne ci lañ ko voté woon et donc pour wax que ne maanaam rappeler nit ñi que ne code voté nañ ko bu yàgg ñu ngi lépp lu ñuy ŋaañ ci presse bi code bi jëm na am na ay saafara yu ci def te malheureusement ba léegi nii mënul mënuñu ko jëmal mënuñu ko doxal ndax simplement en fait décret d'application yi euh, ak yi nga xam ci ne mooy loi yi mu war a àndal ñu ngi ci tiroir yi. haute autorité de régulation de la communication tamit ñu ngi ko doon wax. arca foofu fan lañ bi loi bi pare na li ci des mooy maanaam euh, conseil des ministres euh, daal di koy adopté yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko loolu aussi ñu ngi koy wax boobu ba léegi mais mi ngi noonu mbir mi moom bon ñun dañu ne finalement nit ñi en fait bi amul intérêt pour. restructurer pour assainir le secteur de la presse donc li am nii yëpp lu ñaaw li ñuy ñi lépp dafa leen arrangé quelque part parce que li war a mën a tax maanaam ñu euh, réglementé ko teg ay ñàkk lijjanti ko ba mu normal. mais est-ce que tamit ak ndax ay boycott yooyu tamit dina tax mu dox boycotté euh, ñaata at ngeen koy def te taxul mu indi changement. Euh, xam nga bëri pass dañu boycotté woon rek toog suñu place mais bii moom du ñu boycotté rek toog place chaque semaine dina am. ay actes yu ñëw chaque semaine et bu am na nu muy demee sax benn semaine ñu def ñaari action te ñu ngi préparé marche boo xam ci ne marche bu gën a rëy bi ñu defoon le 3 mais 2017 la woon. Mm. et bi bi leen lii aussi mooy que ne euh, dinañ gis du yàgg dara yeneen yeneen i action yoo xam ne dina la ñëw en tout cas maison de la presse moom xeex bi duñu ko bàyyi dinañu dem ba li mu ba li mu laaj mu jox ko ko vraiment. bëgguñu nag yegg foofu noonu yëpp parce que ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi et président mi nga xam te ne moo jiite ñëpp c'est le père de la nation war na mën a toogkat xam ne lii Ablaye Wade moo ko tabaxoon pour presse bi mu delloo ko presse bi. réfléchir ngeen déjà ci ni nga xamante ne moom ngeen nar a yore bërëb. Euh, non liñ naroon yore kii bi defoon nañ ko déjà sali état bi tous ses représentants étaient là-bas tous les représentants également aussi euh, de euh, de la presse. étaient là-bas ñu toog ñu xalaat xalaat ne kat conseil de fondation mu gën a euh, yenu maanaa ci structure bu mel ni maison la presse et ñu taxaw ci texte yeeg lépp a teg euh, conclusion yi mu ngi fi tege waaye ñoom dañu jël loolu noonu yëpp teg fële te pourtant ñoom ñoo financé woon rencontre boobu noonu ñoo ko convoqué woon defoon li ci waroon lépp Merci, merci beaucoup Ibrahima Lissa Faye, le président de l'association des, des éditeurs et pro, des professionnels de la presse en ligne. On passe à la page publique.